bi dossier Ousmane Sonko bi Adji Sarr di éclaté Ousmane Sonko a été débuté euh, débouté euh, là il attend la date de la du procès euh, avec euh, Adji Sarr la ban xalaat nga ci am. bo xam man du ma fi nekk di ay deux citoyens la ak ñu ngi dem justice du ma wax loolu gis nga man ba dossier bi commencé su ma doon président dinaa jël ñaari doomu sénégalais yu tëjoog ñoom réglé ko. parce que la muy tâche Sénégal à l'extérieur la muy tâche tâche d'huile bi mu nar a def à l'extérieur moo gën a négatif que ñu tëj diw wala ñu daan diw wala ñu dem moom la moom la américain de dire I don't care who's wrong who's right I don't care who's wrong soxlawuñu kii moo tooñ kële moo tooñ kilifa suñ la tegee mais nan nga gisee dossier bi complot la wala. du ma ci euh, dugg y a une tentative. pour barrer la route a ma dégg il ma dégg ma wax ci. lan lan moo ci sax doo ma déglu. Mhm. sama xalaat laa lay wax. mu musoo ma déglu man Arona Coumba Ndoffène ma wax ci dossier boobu te doo ma dégg ma wax ci dossier boobu dama ne dossier boobu ba mu tàkkee te début ba man su ma doon président. dinaa jël ñaari doomu sénégalais yooyu tëjoog ñoom te xam naa ne dinaa ci indi solution noonu la suñu maam yi doon def lu gën a garaaw yooyu xew na ci village yi xew na ci dëkk yi xew na fii xew na fële te nañ ko euh, waxtaane ci biir néeg mm-hmm. ah suturaal na village bi suturaal na réew mi suturaal na nit yi